Birima Ndiaye nekk koo xam ne nii aussi ñu xamee ko baax a baax muy analyser ay analyse am solo waaye nekk koo xam ne day jàppale aussi euh, Amadou Ba Birima ñu dissoudre assemblée nationale ban réaction nga si am. ah gis nga def mooy kontaan rek ku ne la nga la nga la nga ji ngay récolté ñoom bi ñu demee élection présidentielle ñun ñëpp benn bokk yaakaar ak tous les Sénégalais de bonne foi ànd tànn Amadou Ba ne mooy sunu candidat. c'est bon à rien là ñoo taxaw ci ay ay juge dem assemblée nationale au lieu nga défendre sa candidat au lieu nga jàppal sa candidat nga ne ay commission d' enquête na na na day xool ndax daa daa jarul a jarul ci góor su toll ni Amadou Ba ci digg réew mi ak li Amadou Ba tekk ci réew mi ak li Amadou Ba liggéeyal régime Benno Bokk Yaakaar ci réew mi nga xam ne fonds yi ñu liggéey lépp Amadou moo moo moo moo ko jëlandi fayewuñu ko dara lu naan da ngaa corrompre ay magistrat yoo xam ni c'est ak nga ne ko liggéeyal Sénégal ay xale yu xonq tur ay Abdou Mbow xam ne mënu gagné sax village bi gën a ndaw ci Sénégal dara xam ko fan la gagné dix mois Abdou dëkk la mën a gagné Sénégal taxaw naan day def commission d'enquête naan am day xool am ba daa wala gër bu fekkoon ne ba ñuy def commission d'enquête boobu duggoon nañ biir Sénégal di campagne jàppale Amadou Ba mu jël réew ko li leen mais ku ne la nga semé ngay récolter c'est une très bonne chose dañ leen dàq ca xaj mais ñu bëri ñaawlu leen démarche bu président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko yow ndax jàpp nga ne démarche bi rafet na si démocratie am déet nag man li ma ci d'accord rek moy li li jomay bind décret quand même bind décret ne daf sangam la ñuy def euh, DPG avant dem mu dis assemblée loolu benn Sénégal mu ko rafetlu loolu kilifa wax kilifa waaw la sant wax kilifa joomay mooy le père de la nation bu demee ba signature wala kàddoom kenn mëntu koo moom sax wax wa na ko wax bu demee sa kàddu ak sa signature kenn mu tuko gëm mais réew ci dérive la jëm lolou moom c'est extrêmement grave mais nag luma lolu métier, metti metti metti metti aussi def métier, le metti le métier, le métier, gis ci un candidat présidentiel le président tan ko ñëpp métier, ko ñu taxaw le président taxaw di jël parole le Sénégal yi dañu wax ni président bu koy wax xam nga ni c'est faux mo xam ay chat la mu un président bo xam complice de ces malversations yu bon député nek assemblée

président nena lol bokku na sidi tax mu réagir. non dama ne xam nga assemblée la man seen dara ma sax man bañu ñu do da ko man assemblée bi du dara c'est le pire législature bu amoon fam am dans l'histoire du Sénégal bi mo ci yes war nañu xoolaat war nañu dégg na démb Hélène wax ko war nañu xoolaat yeen mot lañu wara war fële député Sénégal Sénégal méritoon na lénu député yi méritoon na lu gën li lii député. pourtant ñoom Abdou Mbow dañuy wax ne que président dafa jàppale Amadou Ba mosu koo xeex et tout ñoom ñëpp loolu la ñuy wax. Macky Sall a trahi Amadou Ba loolu daa ko wax Macky Sall a trahi Ba deux fois benn ci man mi la jaar te dinaa ko leeral Sénégal xam ko il a trahi Amadou Ba deux fois président mooy deuxième fois mu trahi ko. léegi leeralal ñaari.

yéen waa ñoom ah, yéen waa Amadou ndax noppi ngeen comme génn ngeen APR. Ah, ñun Sénégal ñu lay àndal ñun la réew mi yàq fii ñu ne ñoom respect Sénégal guddi toll pour sauver Sénégal c'est Amadou Ba sans Amadou Ba kay xamul Sénégal dem na dem na dérive réew fi ne mi mi ñëpp ku sonnul yow mi sax mi intérêt sonn nga ñëpp a sonn même intérêt mooy Amadou Ba gagné c'est l'intérêt de Diomaye Faye mais Amadou moom dissolution moom gisuñu mu réagir si de en tout cas ba léegi nii. lu waral ah, loolu ah man nag moom xanaa daa wax moom kilifa na. xam ne jóg mhm. xaw naa weddi tuuma mais jàppoon na yéex na bi muy weddi tuuma si accusation de corruption yeeg yooyu noonu. jàppoon na yéex na man ma doon doo nga ko yow ndax yow mhm. gisuma si benn firnde kay gisuma si benn ah? firnde gisuma si benn firnde ñoom ñoo weddi seen ba jër amul warutoo sa wax ndax ñoom fen loo nañ seen bopp ana commission ba wax jëma saa doon wax ana dëgg ga ñoom ñoo fen loo seen bopp jëroo sa weddi maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf jàll